sant yàlla rek alléluia alléluia alléluia maa ngi ñaan Yeesu Christa di presse madame Salalu di ñaanal sama waajur jigéen yàlla fi yàlla baax ba si kanam ñaanal sama waajur góor fu tëdd yàlla suuf si kawam di nuyu monde entier yëpp surtout samay mbokk chrétien di leen di bëgg waale di leen di ñaanal weeru koor gi yàlla na àgg ak jàmm yàlla suñu borom bénir bu baax a baax. Tony Joob la gis ñu foo ne ko. waaw bébé guy comme tey pourtant maa ngi ñëw lamb de. non laqatu fan man may xale bu ndaw laqatu yu sarax lañ génnee ndax wax ji dafa bëri. guy gi fan la jëm. waaw bébé guy gi day nuyuwaat monde entier yëpp di nuyu ñi ma kilo mburu Ousmane Thiandoum numéro 2 di nuyu sama sama président boobe di bëggee suma père Bamba di nuyu père Alain waa RTDK di bëggee Léo Léo Lissana maa ngi nuyu bu baax ak Ndiago Ora. dooni dooni bu sëñ Fallou maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waa Dimène production bàyyiwuma kenn di bëgg waa Géejawaay gi yëpp fan la jëm waaw jëm xanaa di ñaanal Sa Thiès yàlla may ko ndam <laughs> waaw Bébé Gouye day taalal loxo rek pour ay moromam comme ñan booy Dakar nañu ñu bëre waaw Tidiane Faye numéro 2 lamb la ba léegi nii am na yenn boo yoo xamante ne bañu ma ñi lamb yi coon yi dañoo ñu lamb la. ñu waxtaan. waaw parce que lamb ji moom ñi ngay lim duñ la nangoo jël loolu moo tax ma nangoo cité turu mbër yi ba nu mu tudd sa abooy abooy mun na ñëw may ko sens. waaw mun na ñëw may ko sens. ndax ordinateur ko moo daan moo daan euh, ca booy kii bu faas bi waaw caaru montagne loolu lamb la kii. kii boobe bu la jóob la kii ñooy jàpp sama làmb maa leen di bëggee saa su nekk bu baax di nuyu sama père père Pa Mbaye di suñu père day sonn si ñun di nuyu waa écurie Mor Fadam bi yëpp jour suñu course maawo amuñu seen di leen di ne dañ wax wàllu làmb dañ bàyyi xel ci waa écurie Mor Fadam suñu pa suñu papa bañ gaañoo ba léegi dañu ñoo fàtte te ñu si làmb lañ bokk gestu lañu dañoo war a bëree grand a bëree ay yu mag ay ndaw lañ amuñu ne lu dul làmb sama a père ale maa ngi ko nuyuwaat bu baax a baax a baax di ñaanal Eumeu Sène junior yàlla na ko yàlla may ndam ñaanal doy maa ngi lay bëggee bu baax jaajëfal tey